bu ñu jugee foofulee laataa ñuy dellusiwaat ci biir dëkk bu sell bi di Touba dañu naan diis nag dem ba dëkku Poroxaan Euh, bis ba nga xam ne nii ca la ñu doon amal kon tegu xeeru jumaa ja nga xam ne nii moom la ñuy yeesalaat foofu la ca Poroxaan ni ki tey jii di benn fan ci weeru safar la ko amal euh, ci teewaay itam xalif général kullu murit euh, Serigne Mouhamadou Lamine Baara Mbacke Falilou ci teewaay ki nga xam ne nii moom moo di Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke moom Cheikh Mouhamadoul Bassir mu Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ci teewaayu taalibe yi takku moom xalif général kullu murit fàttewu tey këti kàddu ngir rek ñaax taalibe yi fàttaliwaat leen taxawaay bi nga xam ne nii dëkk bu sell boobu la di poroxaan am na ko rawatina nag ki nga xam ne nii moom moo di waajuru Serigne Touba Cheikh Ahmad ba di soxna maam Jaara Buso borom poroxaan moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke Falilu am na kàddu yu mu dénk Serigne Moustapha Ndiaye ñu teewlu ko. waaye bëgg itam mën nga ko fi am ndaxte li sabab loolu maam Mor Anta Sali ci boppam ba sa am benn bis moo woo soxna si na ko dóor ma satana gii te indil ma ko fii ma waaje fi soxna si daal def noonu mu wax daal di duy satala ko te ca buntu néeg ba daal wax ne la nga def naa ko de Mamour Anta Sali daal di dem daa daal di waaj jëm ca waajukaay wa daal tàmbali xiin am na ngelaw lu bari ak taw sàkket bi nga xam ne moo jëm ca war a mel ni muy bëgg a daanu mu ne ana soxna Bousso soxna si ne ko maa ngi ñu mbàkk daal mu ne ko téyel ma fii sàkk bi ba mu daanu soxna si daal di téye sàkk bi wa so Mamor waaj ba noppi kii ma daal di sàkk ngelaw la dikk muy taw taw bu bëri jëm ca néeg ba. ba mu déggee Sénégal ci buntu ba mu melax mu lu ñuul mu ne ko kooku kan la mu ne ko mën a soxna Bousso mu ne ko looy def foofu mu ne yow kat yaa demoon ma téye sàkk bi mu ne ko ah yow de am nga loo xam ne lii kenn duutu ko am yow rek yaa koy am muy Seex Amadu Xadim kon nag fii. Muntaxa da koo bëggoon a ndax sëriñ bi nee sëriñ Muntaxa da koo bëggoon a ndax mu ne ko damay dem mu ne ko bàyyil ñu demal la mu ne ko foofee kat dañ fay wuti da koo da cee bëgg ni ñëpp moo tax mu ñëw. donc wala sëriñ Muntaxa dem na ko ndox danaa yàqu moom kon nag nee na bërëb bi mi ngi nii de. sëriñ bi nee na kenn amul dara lu fii rek nee na suñu maam moo tegal na ko ci ba nit nee na ko soxna Bousso da nga am lu kenn amul da nga am lu kenn mënut a àgg fenn gannaaw kàddu yooyu nga xam ne lii kon tukkee na ci xalif général kullu murid Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke Falilou te ñu amaloon jotaay boobu la ci njiitul Cheikh Mamadou Muntaxa Mbacke moom Serigne Bassirou ñoom kilifa yi bootu ci njabootuk Serigne Bassirou nag fàttewu ñoo yëkkati kàddu yi cant ak ngërëm feeñal mbégte ak taxawaay bi nga xam ne nii xalif général kullu murid am na ko ci lislaam rawatina itam ci liggéey yooyu nga xam ne nii sumb nañ ko foofu la ci poroxaan ci kaw loolu nag Serigne Khadim Diop bokk ci kenn ci nga xam ne nii taxoon nañu ak Serigne Muntaxa Mbacke am na lu mu ci dénk Serigne Moustapha Ndiaye ñu teewlu ko loolu da mooy melokaanu morit rek melokaanu murit moom du tekki du noppalu moom dugg lu ne ah, balaa laa jàll la cay topp fekk si ko ca ah loola mooy sababu ah sëñ Moustapha ku ne xam na ko ci melokaan bi nga xamante ne mi ngi koy dox ci biir liggéeyam sëriñ tubaab bi ah mu ñaanoon sëriñ Mountakha mm-hmm. ngir mu jox ko ndigal ngir ñu mën a defaraat jumaay Porokhane ji ba mu méngoog barab bi ah, ci ci ci ci ci goo xamante ne ku ñëw boo xoolee barab bi gisit jumaa joo xamante ne dana mën a méngoog moom ci xëram sax la mu bëggoon ah, daanaka jege woon na téeméeri mètre waaye sëñ bi moo ko ñaan ñu def ko 66 mètres yaatoo 40 mètres waaye ci xërëb moom daanaka day mel ne kon kër yu bari daañu leen yëkkati waaye loolu itam mooy sama bopp ah sëñ bi bàyyee ko lépp ah nga xam ne lépp moo ko ci defal boppam. li ci sëñ bi dimbalee dal mooy lii. wax ko njabootu gi mu ko bokkal monsieur Amadou Bassir. sëriñ Baara. Cheikh Mouhamadou Lamine bi mu koy waxee daf koo bëggoon a wax. ngir rek mu am ñu mu yebal. ci waa Kër Sëriñ waaye dafa ne nag maa bëgg a damay ñëw. ndax def ma lu gën a ñor lool. kon mu mel ne dikk gi. yeex na ko ko wax sax. wax ba ko ba ko sëñ bi tàmbalee wax loolu day ne ko ah rek bàyyi noonu. waaw bañ demee ba war a ñëw nag. ci la ko waxee loolu la ko ne mënumaa ñëw damay ñëw def ma ko gën a kon mu mel ne bis la tey boo xamante ne nii. noonu ah, ñu sa borom def ñu teewe ko yëpp. Ah, daan sant Cheikhul Khadim bu baax a baax. muy bis bu rafetit ci murid yi ndax gis la boo xamante ne benn fanu safar la. Mm-hmm. benn fanu safar nag. Ah, yaakaar naa ku ci teg liggéey boo xamante ne ah, dafa jëm ci maam jaara mi nga xamante ne mooy waajuru Cheikhul Khadim yaakaar naa liggéey boobu warees na caa yaakaar bu baax ak xel mu dal